mi ngi feneen mi ngi feneen mi ngi feneen kon dafa am loo xam ne du dëgg du yoon gis nga booy jooy joxe da ngay yamale ci kër yi yëpp waaye ima euh, grande mosquée moom dong du fi grande mosquée. tey jii Masaalikul Jinaan ñu ne mooy ñu ne mooy jumaa mooy ñu ne mooy jumaa bi gën a mag si Ndakaaru si digg capital bi la nekk. xanaa kon da nga xanaa kon far nga fan nga bàyyi Masaalikul Jinaan hmm. non maanaam non maanaam non maanaam si capital bi daal kaal kaal kaal euh, si si si euh, si boolu Paris Dakar ak et tant d'autres et tant ah, fan la nekk. Hmm? Colobane mën nga ko génne ci Dakar. mi ngi si Dakar moom. waaw léegi léegi léegi kon xoolal xoolal masaal yi nga xool nga xool nga xool nga xool nga xool jumaa ji ñu wax grande mosquée. fam loo xam ne du dëkk du yoon gis nga. Euh, ñoom ñëpp ci yam na Basiru na dagg yu mboolem yoo xam ne dañ ko doon def te dëgg dañ ko dagg ndax dafa dafa jot nag dafa jot nit ñi kenn ko ne gi sa bopp ci réew mi dafa jot liñ daan def te ko def ngir yaama neex mi mu jóge ci réew mi gis nga yaama neex moo moo fi war a jóg a jóg te incha allah rabbi ci moom dana fi gën jóg mi ngi jóg nak nak waaye dana fi gën jóg incha allah alors euh, sëñ bi ba tey euh, du rek li nga xam ne que moo di imaam yi euh, chef de quartier yi bàjjenu gox yi et tant d'autres et ñoom ñëpp nag ñu ne Macky dafa amoon lu mu sekkoon nag ak ñoom ñoom itam boobu ba tey ñu ngi koy fàttali ki nga xam ne que moo di Diomaye yi aussi wan jàngat nga si def sëñ bi. jàngat bi ma ciy def mooy loolu lépp du dëgg xam nga li dëgg. li dëgg. Hmm. mooy la ñuy lekk. lii dëgg mooy li ñuy naan lii dëgg mooy li ñuy fajoo leneen lu dul loolu du dëgg Sénégal ñëpp ci bokk yam waroo jël ñii di leen ay bàjjen bàjjenu gox mooy lan. ah mooy bàjjenu gox mooy mooy mooy ki teewal eh, eh, askan wa sa gox ba. <laughs> jafe-jafe yi mu faj ko sëñ bi. kenn ku kenn ku ne yaa sa gox sa askan seen bopp lañ fa nekkal. gis nga mbootaay yi daan lekk te lañ daan lekk amul benn njariñ lu tàccoog tàccoog fecc yooyu dafiy dakk dana am ñoo xam ne da mbir mi dana metti ci ñoom de ah, ku woon ci dëgg dana metti ci dana dana ci yow dégg nga man moom ba ma demee ba xam ne si ne euh, nit ku nekk la la say maam bàyyee woon jëlal nga dem nekk ca ci laa teel a xam sama bopp ñu waxtaan ak man ma xam fi may jëm fan la ma dellu man ci sama la samay maam nekkoon dellu mm. Tuubaa di bay mm. dellu ci daara yi dellu ci tool yi ci lii laa ne loolu laay digalit képp koo xam ne yaa ngi ci dara nga nga nga dellu ci nga dem ci la nga xam ne la lay sàmm maam maam ne woon waaye toog fi benn place jàpp na yow moom la daan jóge fi ci béréb na jëm ñëw ci yow kum ci mën a doon ci ñun ñii ñëpp ak kum mën a doon ba yem nga delluwaat dem liggéey ku ci amul métier am nga problème barki Xaadimu Mustafaa du caaxaan ku ci am métier am nga problème. mais sëñ bi ñu ne foo lañ jëmee ay caaxaan képp la ñu ne foo leen jëmee Sénégal seen parti bi <laughs> sëñ wi jàmm rek nag. parce que jàmm rek de. dana am ñu ah, métti de dëgg dafa métti de. mais sëñ bi dina métti de kon. parce que dana gën a métti de. dana gën a nit ñi bala ñu koo miin bala ñu koo miin dana métti de weeru koor gaa ngi nii bu yàlla ñëwee ne wóor leen am na ñoo xam ne ci ne métti na ci ñoom. Hmm. waaye mujj na jeex àdduna lu dul jeex amul nañ muñ rek. nit ñi xamuñu dëgg. nit ñi lañu xam mooy wor lañ xam. nit ñi fen lañ xam nit ñi naxante lañ xam nit ñi lekkante lañ xam nit ñi li ñu xam mooy war sa morom la xam loolu nag léegi jeex na fi tàkk nag dégg nga loolu lépp jeex na fi tàkk te incha allah rabbi ci kàttanu dëgg moom la yàlla bëgg te dëgg googu la ñu fas yéene ñoom ñii ñu ne ci. ku nekkul woon ci ay ku nekkoon ci ay caaxaan nag bay bu ko daw te seet noo def ku nekkoon ci dëgg na sa xel daal te nga gën a defaraat sa der te xam ne jàmm rek mooy am incha allah rabbi ci kàttanu yàlla.

avant ngay togg lepp lu fekk si ci lan nga nekkon lan nga nekkon gis nga nekkal yalla man kaana lillahi kana laahu lahu gis nga kep ku nekkal yalla yalla ya borom subhanahu wa taala nekkal la kep ku jox sak ndaw sa borom subhanahu wa taala bo rien ba jëm mak sun borom dalay teel hmm ha hmm kon képp ko gur gur lu nga ba yar sa jëm yar sa bopp ci lu baree baree bari loo xam ne borom bi daf la koy aaye nga nga fexe ba loolu nga génn ca aw nga yoonu dem sa yoon mooy waral tey ji saa bu ba nekk magum jëmm nga toog fi bërëb nekkal fa yàlla yàlla di di di yàlla di jël jaam ñi nga xam ne yàlla yàlla nar leen leen dimbali ñu ñëw ci yow leneen di yàlla di jox ñu koy jël di ko bokk ak yow ñooña moom ay boromi barke lañu barke boobu yàlla moo dogal nga am loo liggéeyal borom bi ba borom bi di la ko fay. Mm. ndànk ndànk mm. nga toog di di tedd ay teraanga. Mm. mooy ki nga xam ne dafa def dafa dafa dafa wëril dafa ambulant. fenn ne mu wër fa ba am loo xam ne mën na koo chargé place mu chargé place toog place ba di dox loolu yi mooy toog muy dox leneen lu dul lool yi nag leneen lu dul lool yi nag leneen moo ci nekk. maa ngi dégg nag ñoo xam ne dañuy wax ne sëriñ si ñi nga xam ne dañuy toog muy dox toog muy dox amul de. yëngatu muy dox laa fi gis am na la tax mu tax muy dox am na am na am na lu tax muy dox bu doon nag bu dee dëgg moo xalal. mais sëñ bi mais sëñ bi xaalis bu ñu wane si internet bi mais xaalis bu ñu wane si internet bi Maletteeg et tant d' autres et tant d' autres xaalis bu doon circuler un peu partout ñoo xam ne bu tey liggéeyuñu ko. loolu loolu jeex na loolu jeex na loolu jeex na ku ko defee di tëdd ci kaso bi. ku fi génne ay tëdd ci kaso bi. dama ne loolu jeex na tàkk ci Sénégal. juroom fukki at ci suñ kanam ku fi ku fiy génne benn malet tëdd ci kasso bi. mo xam fii xana ku ma malet am euh, euh, mën nga ko génnee maye ah ku am sa malet señ bi. <laughs> dama ne la dama ne la yow kay yow kay señ fallu yaangi fi maangi fi nañ fi yalla gëna bayyi rew mi neex na de ak señ Bamba rew mi neex na réew mi neex na de li ñi taxoon nit ñi ray seen bopp ñen ñi di ñen ñen ñen ñu leen tiir ay bali ay ay ay ay bali fetal. dégg nga ñu doon sotti ndax mu tàng tey la ñu doog xam njariñ li mooy lan wallahi alazim sëñ bi sëñ bi sëñ bi réew mi neex na de barke borom Tuubaa réew mi neex na. Hmm. te fi mu ne képp koo xam ne si ne sàcc rek moo la ñoroon nga doon sàcc danañ la fexe ba tij tij la fi béréb nangul la nga yor def ca lañ ca war a def boo nanguwul ñu tëj la ci kaso bi. mais pourtant danañ la neexal ba pare. Euh, mais pourtant yéen euh, nee ngeen yéen a xam ni tam yéen a nekk si daanu passif que ni fayee ko euh, doo leen doo leen fayantool exactement sëñ bi. Euh, euh, doo leen fayoon tool mais justice dina am est-ce que doo leen fayoon tool boobu noonu amul dara loo xam ni itam ñu ngi koy sous-entendre en par là. ok waaw léegi ndax ndax ndax ndax ndax loo xam nga lan mooy fayantoo mooy jàpp ni di ko tëj ci lu dul dëkk hmm. moom mooy fayantoo ndax ñun dañoo dañoo not dañoo not jaay ñuy doole. Hmm. te ñu ci kaso bi. léegi léegi suñu àq ak su suñu yelleef ñu ñu ñu xañ ñu ko. te ñu kaso loolu duñ ko def kenn. waaye li ma lay xamal mooy képp ku nekkul ci dëgg danañ la teg ci dëgg danañ la xam lan lan lañ la wax lan mooy dëgg danañ la wax itam lan mooy li nga war a def. Mm. waaye nag du ñu fayantoo kuñ ci tëj kaso nag bu jàpp dañu fayantoo déedéet gis nga dafa bari ñoo xam ci régime bii jàlloon lanu yoroon dara du ci nekk dëgg alali jàmbur képp lañu yoroon mooy alal lu réew mi ñooña nag réew mi ñoo sàkku maanaam askan wi ñoo sàkku ne ñii nañu leeral liñ yor. ñu askan wi sàkku na nañ leeral li ñu yor nag ñooñu nañu génn ñu leeral. mais bi est-ce que nga jàpp ne soo ñëwoon rek focus def focus directement si liggéey bi gënul gaaw peut-être euh, ngeen attaadewu si dina xam ne que moo di ay leeral. sëñ Fallou. mbaa hmm. xam nga ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régime bi ah? hmm. ñoom ñépp bu ñu leen tegoon. billahi wallahi tallahi xam nga dama giñ. Hmm. kenn ku nekk ci ñoom ñu dij la fi béréb la nga yor taru dëgg ñu nangu ko bill yi mën nañ cee tàmbali li ñoom mën nañ tàmbali ci euh, euh, liggéey ci seen mandat bii nii. xaalis boobu noonu donc xaalis bi takku na ëpp na ay multi milliards. Hmm. la ñuy dem di àbb ji ay ay ay réew ñu ñu ñuy lebal xaalis. war naa ko ci yàlla bu ñu audité ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekkoon ah dama ne la. ay multi milliards lañ lañ lañ lañ lañ lañ la ñuy gagné ci ñoom. comme takkoon na noonu sëñ bi xaalis bi takkoon na noonu. loolu da ngaa xam li ngay wax ñun réew mi lan moo tax doxul ah. lan moo tax réew mi doxul. xaalis réew mi dafa amul xaalis. réew mi am na xaalis de waaye li fiy génn ñoom ñoo koy séddoo ñoom toog bàyyi bàyyi askan wi. moo waral lépp cher dund bi cher lépp cher lépp cher lépp cher. war naa ko ci yàlla buñ leen joon fi béréb classe imam bay ñaay yi ah ay ay ay ay ay ay ay nu mu tuddati euh, ngóor si ngóor si dëkk Agnam. Farba Ngom. ah Farba Ngom ay ay Am Am Am Amadou Amadou Ba. pourtant sëñ bi ñoom nee na ñoom lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yor ñoo ko liggéey pourtant ñoom nee na lu ñu yor ñoo ko liggéey. ñoo ko liggéey ñooy lan. nañ nañ xool seen déclaration de patrimoine kañ lañ ko defoon ak lan lañ amoon booba ak diggante bi ndax lii mën nañ ko fi am wala déet. ak waajooju noonu naan boo ma boo ma ko waxatee ma tëj la xaw ma nu mu tuddati. Euh, Aliou euh, Mansour Mansour mais Mansour Faye dem na dem na dem na of nag. lu ñu mën a moo ñu ko teg. Mansour lu ñu mën a dal ngóor soosu ko teg ci moo ñu ko teg ci moo ñu ko teg ci wàllu wàllu wàllu. corona bi fi jàlloon. dañu ay nit ñu baax sax barke Serigne Bamba Sénégal ñi ko jiite woon barke Ahmadul Xadib ay xaj moo leen gën. billahi du caaxaan maa la wax lii. wóor na jëmmi Serigne Bamba daj nañu lu nekk jël alali jàpp loolu maanaam ñoom sax yaakaar naa ne ku ci tëdd conscience xanaa xam ne fi ne maanaam euh, lu gën maanaam lool sax maanaam euh, xuma